ginnaaw bi mu dajalewee yenn ci service nguur gi malik njaay di jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem ak dikk bi samp ak waxtaan ak ñi ngank transport fii ci Sénégal syndicat ba ci dawalkat oto bàyyiwu ci kenn bëbët bi nag mooy taataan seen xalaat ngir soppi xar kanam transport waaye itam indi ay saafara ngir dakkal accident yu bari yu ñu fi nemmeeku. ñiy yëngu ci wàllum transport jàpp nañu ne war nañ leen gëna mëna mën tàggat. moo xam ñi moom transport bi ñi moom oto yi moo xam ñi ciy yëngu ci organisation bi moo xam ñi dawal waaye tamit ñi koy jël kon tey li ci ëpp solo rek mooy xool li ñu waajal ne xëy na bu ñu ci demee nii ci pétage généraux yi euh, mbir mi dina mën a jaar yoon ba ku ci nekk gis ci sa bopp te loolu nag euh, dañ ciy soxla xalaatu ñi nga xam ne ñoo séq secteur bi yépp kon euh, euh, donte cinquante pour cent session yi transport routier la nañu fexe rek ba euh, ñu boole lépp rek ngir mën a am ay rapport yoo xam ne bu ñu ko tënkee teg ko ci loxo yi en tout cas kilifa yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo war a organiser états généraux yi Euh, bu boobaa ñëpp dinañ ci sentir seen bopp dinañ ci gis seen bopp. jéey yooyu nag doon lu metti ginnaaw ay bakkan yi si rot Sénégal mi ngi ñàkk lu tolloog 900 milliards mu doon ay jafe-jafe yi nga xamante ni des na seewut ay saafara. ci saytu yi nga xam ne def nañu ko ci 2022 wane na na at mu jot daanaka lu toll ci 900 milliards xam nga 900 milliards ku ko defoon ci renouvellement park bi park bi bees tax waaye dinañ ko ci ñàkk te loolu day am lu muy jur ci suñu PIB maanaam 6 pour cent yoo xam ne nii dañ koy perdre te dara waralu ko lu dul euh, doxalinu transport ci réew mi rawatina nag transport routier parce que nag mooy bi ci ëpp ay jafe-jafe. lu l'union des transporteurs routiers du Sénégal di kuréel bu ëmb secteuru transport fii ci dëkk bi di rafetlu bu baax a baax woote bi ministre bi def ñoom nag nee nañ pare nañ ngir waxtaan lépp luy jëmale kanam seen secteur bile. fan yële génn gis nañ ne technicien yi dajaloo woon nañu ba def ay termes de référence tey nag termes de référence yooyu la ñu war a indil présenté ñu ko ginnaaw présentation boobu nag bu ñu ubbee débat nag foofu la ñu mën a joxe suñu xalaat ndax lu ñu loolu rek xaar. en tout cas lu ñu kontaan la parce que lu ñu yàgg bëgg la tey bu ñu ko amee dañuy wax ne alhamdulilah rabbil il faut qu'on autour d'une table tey nag on a quatre jour de concertation pour kenn ku nekk joxe sa xam-xam ci nan la ñuy def ba transport jóge fi mu taxaw transport aérien transport maritime transport ferroviaire ak transport routier il y a trop d'accidents yooy yooyu nag moom tax kenn ku nekk ne naa jóg joxe solution pour accident jeex ngir ñu mën a am dëgg-dëgg secteur transport bu xarañ te méngoog suñu doxalinu réew Malick Ndiaye di jëwriñ bi ñu dénk wàllum dem bi ak dikk bi di ñaax ñi sekk secteur bi boole seen xalaat ngir ñu mën a am dëgg-dëgg secteur transport bu ñëw.